wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokk yi nuy bàyyi xel ci seen chaîne youtube al muxtasimina tv asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw ba nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwaat ngeen ci seen quatrième numéro émission bii di al iftar fii ci seen chaîne youtube al muxtasimina tv macha allah démb nag maa ngi yemoon ak yow wax la ni la boo bëggee sa diine rafet góor góorlul ba nit ñi nanu mucc ci sa làmmeñ waaye itam nanu mucc ci sa loxo góor góorgóorlul ba bul wax nit lu koy lor waaye góor góorgóorlul itam ba bul fay nit pour mu yàq kenn waaw léegi nag jamono jee fi toll waaw da ngay gis koo xamante ni day fekk góor gu set wicc xamalu ko dara waaye eneel dugg na ko mu fay ndit yëkkati xaalisam fay ndit pour mu bind ci moom loo xam du dëgg jamono jooju la ñu toll jël ndit dagg kanamam montage ko mu mel ni day def leneen nga yàq deram ngir alalu àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nag góorgóorlul yow jullit ba bu ci bokk bul la jënd itam bul la jënd bul ñàkk fayda ba kenn di la fay pour nga yàq nit amal personnalité amal dignité waaye gëmal sa borom kon bu ko defee tabaarakallaa loolu la ñu leen waxoon démb mooy émission yi passé wax naa ni la jullit bi war na góor góorlu ba làmmeñam mu bañ ci lor kenn waaye ba loxoom mu bañ ci lor kenn ñun yonent bu ci tegu mu ni ki gën ki gën a jullite ci yéen ki gëna rafet ak jullite mooy ki nga xamante ni fexe na ba xolam rafet wa afdalul muminina imaanan mooy ñi nga xamante ni ahsanahum xulqan laa ilaha illa allah yonent bi salaay salaam nee na ki gën a rafet jikko ci yéen mooy ki gën rafet diine ci yéen jikko yàlla dafa woo Seydina Muhammad ni ko lépp euh, euh, zéro faute waaw zéro tâche zéro faute li nga jëf lépp bu ma la xooloon ci julli yaa ci mën ñëpp bu ma la xooloon ci askan yaa ci man ñëpp ndax fal urbu xayru unaasin summa xayru humu xuraysuhum wa fii fiihim xayru xayrihim Seydi Hajj Malick nee na ñi gën ci ñi gën ka leen gën muy Seyduna Muhammad kon bu ma la xooloon ci askan yaa gën ñëpp yàlla ni ko bu ma la xooloon ci juddu yaa gën ñëpp yow Seyduna Muhammad نحباب بشهرين في الجيم القيام وفي دال غدا ممسك الجدران ذا همم وقدرة المشي في هاء وأسرع في واو وفي الزاء يرى سعي محتزم نينا بيغي أم يو سيدنا محمد أفانياري أتسخ من قبل عامين جفرا كان ذا أدب بمالا خولون رك تسان داو يارو نيب بمالا خولون ci ni ngay jëflante nit ñi yaaraw ñépp waaye ma bàyyi fa yooyu yëpp xool sa jikko nattu la man borom bi subhaanahu wa taala teg la façon métit bu ne fexe ba ñi nga xam ni say baay lanu ay baay lanu ci ñun ma roof leen ma roof leen mbañeel gu jëm ci yow ñu bañ la xanaa loolu métti na nga xëy xëy yow Sayyiduna Muhammad jël say bagage foo jëm maa ngi jëm Taif ndax samay ndiyaay yaga fa sonn naa biir Makkatal Mukarram ma roof waa Taif yooyu nga xamante ni ñoom ngay fekki di say ndijaay ñu gën laa bañ sa bàyyi nga bàyyi loolu métti na mbokk yi waaye xol ba mu fa jógee lan la wax allahumma ighfir li qawmi fa innahum laa yaalamun damay njëkkanteeg waxtu bi moo tax ma tënkal la ko kon jikko jooju moom la yàlla tagge sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko daal gis naa ni mbooleem yonent yu ma yónni mbooleem mbindeef bu ma bind yaa ci gën jikko yonent bi nag ni boo bëggee sa imaan gën a mat da ngay rafetal sa ko mbokk yi foofu laay teg sama baaraam ba subaak jàmm ñu gën ko yaatal incha allahu rabbi yow mi nga xamante ni yaa ngi suivre chaîne bi maa ngi lay wax nga profito abonné waaye itam ngay partager waxtani ndax lu bax ku koy def dafa bëgg mu siw lu bax ku koy def dafa bëgg mu siw te itam bu siwé ke ko siwal dana am yool bu tollu ca kaka def la mu def kon yàlla na yàlla defal len jam ba subaak jàmm alxaaji Mouhamed la woon ci caméra bi alhaj Mun Ndaw ci régie bi alxaaji pap ci technique bi sen bokku talibé al oustaz pap adjek émission bi di al iftar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh